on est des Sénégalais amuñu beneen nationalité bu dul nationalité sénégalaise donc il y' a certaines choses yoo xamante ni nit ki bu koy def war na war a mën a koy def soit magam la wala rakkam la il y' a certaines choses yo xamante dafa ñaaw oto bi nga xam mom la toj bi moo dawalee oto bi y' a même pas une semaine il y' a même pas une semaine mo jënd sama oto donc di ko dawal di fekk ko toj ko ni amna yo yoo xamante ci ko xamante ne waxul dara lo xamante dem ko ci xeeb wala soit mu jël xaalis am xaalis bi amé ko neneen ko comprenez donc

dinaa def sama plainte également y a des caméras de surveillance yoo xamante ni ñu ngi aux alentours man li nga xam ne war na ci dinaa ko def ba mu si mën nga jël verre yi nga xam ne donc dafa tëj bu bu voyez donc yaa ngi gis oto bi mu ko jëndee yaa même pas une semaine dawal ko nit ñëw fekk ko toj ko am na si yoo xamante ni c'est pas bien rafet nga fekk sa oto sa morom jullit wala boo xam ne mën a doon jënd alalam nga koy toj am na yoo xamante ni baaxul waaw. Mesela, mesela.